ku la sampub sëriñ baara mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ci ndigalu sëriñ Mountakha Mbacké xalif général des mourides sëriñ Ahmadou Makhtar xalifa Darou Khoudoss sëriñ Moustapha Matiley xalifa sëriñ baara sëriñ Moulay Mbacké xalifa sëriñ Balla Thioro sëriñ Khadim Mbacké xalifa sëriñ Cheikh Thioro comité de pilotage journée culturelle et religieuse Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñoo am mbégte di leen digal 16e édition bi ñuy amal samedi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2023 ca Cissas ren ñu tuddee ko sëriñ Cheikh Thioro ak sëriñ Balla Thioro di ci rendre hommage sëriñ Assane Salam Serigne Abdoul Khabir Massamba Mbacké Serigne Saliou Touré Mame Bou Mohamed Kounta Serigne Moustapha Mbacké moom Serigne Mbacké Soxna Serigne Cheikh Mbacké Modou Faty Khary Serigne Bassirou Mbacké Mor Serigne Cheikh Fall Ndiaye Mbeng Cheikh Mouhidine Samba Diallo magistrat Serigne Ahmadou Ba président Iba Kole Bao Serigne Amar Birane Thiam Bara Amar Djemoul Alhaji Alé Ndiaye Alhaji Dame Diop Mansour Alhaji Ndiol Diané Alhaji Bamba Sadi Soxna Mame Faty Mbacké Maremoudo Soxna Fall soxna Ndeye Guèye Adja Ndeye Fatou Seck soxna Bousso Ngom Adja Mame Fama Diop soxna Momi Dali Guèye day soxna Mbacke Moustapha Massamba soxna Endo Mbaye ak yeneen kilifa bés bango 16e édition journée culturelle et religieuse Serigne Bara Mbacke samedi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2023 ci 6h ku ci bëgg ak coordinateur bi Serigne Bassirou Mbacke Khadim Awa Ba ci 77 635 01 71 77 524 53 27 asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu buuru jullit la ko def bu yaate tey ba ëllëg dunyaa raaluhu ñeen dafa am jàmbaar ju fi agsi léegi ñu naan ko Omar Baba Siñoor moom Cheikh Mouhamadul taxa Omar Baawo doomi Cheikh Mouhamadul Muntaxa waaye Omar Baawo taalibe Cheikh Mouhamadul Muntaxa Omar Baawo moo ñëw léegi ànd seen Khalil Ndiaye da Khalil Ndiaye nag kenn du ko présenté ci réew mi muy ndaw lu yaru ndaw lu baax nangoo liggéey ba noppi mën a dimbilee ñu ànd ak nag sa doomi bopp ji di ma jóob mbay peex nga xam ni moom day kenn ci yow baayam di sa xarit ngeen bokk Kébémer ngeen bokk peex nee na mu jël doomam jébbal ko ko moom mii di Seex du Basiir kon moom it fépp fu mu teew mel ne nu Omar fa teew kilifa nag bu dee jóg yóbbu boppam ànd ak ña yónni ànd i xaritam mu wane ni fa mu jëm moom da koo ñor te te te sëñ Bass Xaadim Awa mii day faral di wax ni nee na làmmiñ mën naa wax lu mu gëmul bët mën naa xool dara te neexu ko waaye tànk fu mu jëm nag borom a ko fa yóbbu <clears throat> te kii nag nee na moom taalibeeb di sëriñ bi rek la <clears throat> bëggul dara soxlawul dara lu dul bëgg a doon ab murit jaayante nag <clears throat> ak sa ak sa baay bu baax bii muy Cheikh Mouhamadou Mountakha sëy sëñ Mountakha nag maa toog moom mii mu toog ma jóob toog ah, ah, ah, xalil toog mu ne ko xàmmeewu ma la am mbaay mu ne ko eh, xàmmeewu ma la ak sama doomi bopp yi keroog Omar dafa sëgg jooy li mu jox sëñ bi ciy fas lépp sëriñ bi day leen a ber wutal leen na géttug boppam kii lu mu am sëñ ma sëñ sëñ Muntaxa moom ah aajo ju mu dégg daaru minnam te te te jooja aajo fajiwul dafa agseegul la ci noppam kon nag bu fekkente ni ñëw na ci bis bi te ku ne xam na ni daaw da koo fekk tukki waaye dafa dagg tukkeem jóge aéroport Madiop jubal si fii di rek ren jii ñi mu sekkal liggéey bi ñëpp a nga Europe waaye moom journée sëñ baare bi da koo ñor nee na ndax yow nag Mbàkke dangay xaritam di ñitam di kenn ci moom nee na nag li doon ci sëñ Touba nee na yéen ñaar bokku leen rang yow yaay kilifaam donc war a digal mu def di koy yónni muy dem nee na waaye nag mbàkke yow danga koo def fa muy sa xarit fu tuddee turam yu baax ya nga ciy teg nee na yëpp mi ngi agsi ci moom ndax nee na moom nag ta tànkam gàtt na waaye noppam nee na gudd na lool nee na yenn saa yi nga dugg ci barab ne fekk fa turam wax fa loo xam ni moom des na ko gën a jàppaat des na ko gën a téye nee na kon nag mbàkke moom moo amul sa pay ñëw na nag ànd ak ñi mu àndal def na mu daan def jëfam ci bis bi indiwaat na ko muy jëf ji muy ñetti million yoo xam ne nee na da koo tàmbale waaye bu subaa it képp koo xam ne gersu nga di ko gis ci biir lu waay wax dana ko ci boole nee na ndax yow da ngay kenn ci moom loo nekk maga ca ma jóob maamul maamul wax nga kàddu gi sax waaye li ma ci li ma ciy dolli rek mooy Serigne bas dafa féete Omar baaw foo xamante ni kenn féetewu ko fa waaye balay loolu maamul Omar Bawa def ni ma man nuyul ko njabootuk Serigne Touba gi mu fekk ci jataay bi njabootuk Serigne Touba gi mu fekk ci jataay bi yëpp Omar Bawa nee na kenn ku ne am lente naag yow am lente goo xamante ni jaadu na mu fekk la fa nga nekk mu jox la loxo ni la mbàkke nga ne ko baawoo waaye nag jataay bi ni mu demee ni mu xate moo waral loolu muy koy jéglu bu baax waaye njabootu Serigne Touba gii yëpp kenn ku ne am lente naag yow kenn ku ne Omar nee na kaddu gii ma yëkkati mooy sëb nuyoo fekk na la fa nga ne ni la mbakke bal la jox la cër bi nga xamante ne bu gisoon seex Mamadu Muntaxa cër boobu la ko jox kon mi ngi nuyu njabootu sëñ Tuubaa gi fi teew waaye Mamour li may doole ci kàddu yooyu rek mooy wax nga lépp diggante Omar ak sëñ bi nag Serigne Bass moo doxe kat moo doxee ci doxewun woo xamante ni moo tax Omar Baaw mittee ko ndaxte Omar Baaw dafa amul lu bàyyam alaaji bokkale Baaw bàyyam boobu nag Serigne Bass mi da ko faa foo xamante ni ña ko fa féete moo tax mu jàpp ko jàppin bu wér saa su Omar Baawo xewlee ci këram di kër baayam Alaaji Bokkole Baawo Serigne Bass mii moo fay njëkk moo fay mujj ay teraangaam moo fay njëkk moo fay mujj moo tax barki démb ci màggal gi daf ni ma bu ñu duggee Touba bu ñu duggee Serigne Mountakha ba génn damaa bëgg ñu ànd maag yow ba ca kër Serigne Bass ndaxte Serigne Bass kat rus naa ci àdduna duggati Touba te dugguma ci këram ndaxte li may defal ak teraanga ji muy indi sama kër ak teraanga ji muy yónnee sama te sonniwu ci taayiwu ci benn yoon loolu moo tax tey mu ànd ak délégation bi mu àndal ñëw nit nag noo ko def rek na lay def nit leen rek les koy doyee njariñ soo gisee boobu ba léegi ba bés bi teroo ba léegi saa su ne ji bari mooy ni nga mel doomu aadama yi sëriñ Bass xeebaloo kenn bisam ku xew la ku ne bàyyi nga sa yite yëpp def sa délégation def sa essence ak sa enveloppe ñëw teewal ko kon nag loolu moo tax tey ku mënul leble nag war a mën a fay nit ñëpp di ñëw di fay si bor bi loolu moo war a Omar Ba tamit ñëw ànd ay forte délégation àndante xali njaay xaritam di genn wàllam di goroom di léppam àndanteeg man mii ñu ñëw ci Mbàkke ci bis bii di la ci ñaanal yàlla nga ci dugg ci bisimilahi rahmaani rahim àggale koog alhamdulilahi rabbil alamin Omar nag nee na ma ma santal ko xaritam bu fi nekk di kenn ci moom muy sëñ Fallou Gasloo mii day xaritam di kenn ci moom waaye ma santal ko it ah, sëñ jiri kennal mii nga xamante ni moom it saa su ne Omar Ba wu suba ba ngoon sëriñ Jiili kennal mii day ñëw nekk ci ak Omar Baawo Omar Baawo tamit nee naa ko santal bu baax ak ñi fi fekk ñëpp. sëñ ah, sëriñ Basiru Mbakke moom sëriñ Xaadim Awa Ba moom Cheikh Amadou Amin Baara Xaadim Rasool ngi lay nuyu di waaye ki ma tax a jëw jël rajo bi mooy sëriñ Mbaye Modou Lo mii sëriñ Matar jur ko sëriñ Masaxir jur ko. Modou Matar Faty Dia ak Sira Faty Dia ak Sakhir Faty Dia ak Fat Ndiaye ak Anta Sylla bokk ndey ak baay Sira Jaxate la seen baay tudd Ndiaye Anta Sylla la seen baay tudd Sira Jaxate ko jur Sira Jaxate ak Njuga Jaxate bokk ndey ak baay mbër ko bale ñaan la seen baay tudd mbër ko bale ñaan Matar Naar yàlla yu soo ko jur Matar Naar yàlla antaloo yàlla su bokk ndey ak baay Baran Awa Sarr Omar bu daam mi tax lu ko tudd lu ko sant loo mu den rek Fallou Galas Loo mii nga xam ni gaynde kokki moor war xa jur ko masàllaa waaye daam mbayang jur ko dem jur ko Damba Demba Wassar jur ko waaye Demba Wassar Damba Masalla Damba Mbayang ak Demba Demba Wassar baayam Demba Wassar dam dak kebe dam dak kebe ndak kebe ndeyam jeyla kebe ak saa kebe ño bokk ndey ak baay jeyla kebe dem ngeen sëy jël xuja kumba am ta sira xuja kumba sa maam ak gaydeel ak sëy ak anta sek ak faalo ak yàlla ak daaroog maam jaañ ñu bokk ndey ak baay yàlla xuja kumba sa maam jox ko saaxewar fatma moom ca mu du yàlla lu mu jur garmi mila aminata sa maam lu mu jur wàllu yu la amadu yàlla sa maam dem jolof jël fatimata nguy am ta seyna bu joob ñu delloo ko jolof deg ko biram penn njéeme njote maam caal buri njaay aminata sa maam dem kooke njaga am fandaak xare maak xëri maam pend bu ya mu daminta ak samba xëri maam dem dëkkale jox mu ndak jaana sangomba maam jaaba xëri maam wuro xaaj ñob ko ñoom rek jox tas matar binta on soxna mi loo aminta faal ale loo waaye ma salla ndax kii nag maamun danoo bokk ca ngan na sall ceega maram faal maam jël mbend bara jox am ca bëkkëri mbend ak mujul mbend ak mëgeeg anta gay Anta Gueye maam dem Ngana Sall jox ko Bakar Mbaye moom ci Ibrahima Gueye Assane Anta Gueye Koddu Jaaga Ibrahima Gueye moo ju Assa Dieye Sall mu jël Cheikh Assa Dieye ak Fallo Assa Dieye ak Soxna Maao Ngana Sall la bokk Bakar Mbaye ak Mayacine Mame Paul Dieng Bakary Sall Bram bokk baayam Sambu Mané jërëjëf Mbacké loolu laa doon wax Mbacké dina ziar ñëpp sa bis bi ne xaj na ci bu dul woon ak Serigne Touba Mbacké sa maam duñu ko tal gis nga Omar Ba ndax lu baax ni koy jëli ci ngërëmal ñaari waajur doom ndeyam da koy gërëm baayam gërëm ko yàlla gërëm ko yonent bi gërëm ko sëñ Baba gërëm ko yaari ngërëm yooyu nag dajale ci moom Iba Kola baayam am na ngërëmam Aminta Baawa ndeyam am na ngërëmam tubaarkàlla man mi dama doon xar dama doon xaritu baayam di genn wàllam yam ngoone bàjjo maa leen duma yéen lan siir Anta Njaay ak lan Fatim Anta Njaay borom daama ak jaama ak oto borom maraadum deew ku fab leneen bàyyi teen waa gànna sa maama woon kenn du lekk Dakar ngir toog bari ma ak jaam ña cam ñol joojuru ba ak maye siidi xuji siidi maa jooja ngaat lay ngaat lay la ma ndéem anda baati jag réew ba maa ngi lay ñaanal baaw foo bëgg a yegg yàlla nga ba yegg maa la sa maama woon kenn du lekk Dakar ngir soog bari ma ak jaam bir gurju jiba ci kiil bu ñaar ta bayaar ba mais teen faggan na ak moko bu ñugu faggan na ak bosor sala bokk nekk baay faggan na fa ñaay gis ba jàppar daw fara baxal jërëjëf Mbacke yal na la yàlla bàyyi suñu kanam sa baay sa baay da doon suñu ta sa doon suñu sëriñ di suñu kilifa gemb sëñ Baara Mbacke sa maam wala yu Kajoor ak Bawol Baara Amina Tolo Moustapha Amina Tolo Mamar Jandam Masamba Gàdd Ndaak Ndaak ak Marema ak Penda Buya ak Xarimaam Xarimaam day yaaba Xarimaam sëriñ kooku ñàkk si jéy mu ci njum mu taar du be soxla ñaan saa xeeru faat ma yàlla na nga yàgg tëj wér sëriñ Bara yow la nu yaakaar fii yow la nu yaakaar fee. yow la yaakaar abadan ba. ilaahi baara amina tolo Mustafa amina tolo. koo ci gis muy bamba baari. murito yéen waa géeje. waa jéere. gaynde baara woote na baari. murito yéen waa géeje. waa jéere. géej baara woote yal na nga yàgg woote yéen waa géej géej yéen baara woote na baar bilaay yéen waa géej baara woote sordaal seede ma yéen waa géej géej sordaaru Seexul Xadiim baari bilaay yéen waa géeje sordaar seede ma baari bilaay yow la fee sangub sëriñ Faliloo gayndel baari bilaay yéen waa géeje sama am na ndam baari bilaay sama waaji am na ndam yaa di gaynde baara gaynde baara am na ndam Sëriñ gaynde baara am na ndam baari gaynde baara am na ndam Seexa boo Madiyaana Sëñ Fallu Mbàkke baayam xalifatu Sëñ Fallu Mbàkke baayam xalifatu sëñ Fallou Mbacké baari seexaba baraka moo la def nga doon baari sax seexaba baraka moo la def doon baari seexaba baraka doomi seex Fadal moo la def yow doon baari seexaba doomi sëñ Fallu la moo la def li nga mi ngi delluwaat di nuyu mbokk yi nee na moo ngi jéggulu ci jataay bu yàgg bi sëriñ Basiiru nee mi ngi sàkku ñi ci ginnaaw ci jëmmi sëriñ Tuubaa maamam ñëpp déglu ndax li muy wax da koo lool nee mi ngi dalal monsieur le Abdou Lahad Ka sunu di xaritam sunu mag di magam di soppeem di nit ku yàlla baaxal sëriñ bi nee na monsieur le maire Abdou Lahad amul jot fudul Touba li ko nit di gis ci cérémonie bu nekkul Touba bariwul sëriñ bi nee na waaye nag dafa am lu dox diggante ak digganteem ak moom muy cofeel te yàlla rek tax ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Cheikhul Khadim mu xamit diggante Cheikh Abdou Ahad ak Serigne Bara mu nekk nit ku yàlla baaxal ku yaru ku mën a muñ ku xam teraanga ku mën a sonn ci xaritam ku am yëg ci doomu aadama sëriñ bi nee kon bu monsieur le maire ñëwee at mu jot nee na nii la koy defee ak moom bu nee suba la day ñëw bu bis baa mu ñëwaat ànd ko ak moom mu nekk ca mairie Touba ànd ak sëriñ Sidi Abdou Aziz di liggéey ànd ak sëriñ Sidi Abdou sëriñ bi nee na ñu jox sëriñ Mahfous mu toog sëriñ bi nee na ñu jox sëriñ Modou Mahfous moom sëriñ Modou Makhtar mu toog sëriñ bi nee na lu mu nekk monsieur le maire Abdou Lahad bokk koog moom nekk. yow yaa yor secrétaire jotaay bi Galas mën na koo dem. sëriñ Fallou Galas lo sa mag sa xarit sëriñ Basirou Mbacké. nee na yaa yor secret jotaay bi mënu koo dem nee na sirub jotaay bi yaako yore ndànk monsieur le maire sëriñ bi nee na jërëjëf nee na bëgg na ci yow kontaan na ci yow mi ngi lay ñaanal yàlla yàlla jàppale la nee na da ngaa nekk nag ci dëkk bu mettee yilif muy Touba nee na lu na ngay dégg te ku xewle bu la ko yëgalee la la war lépp nga def ko ngir jëmmi Serigne Touba monsieur le maire Serigne bi nee na yàlla na la yàlla jàppale nee na yàlla na leen yàlla sàmmal kóllëre gi yàlla sàmm la taxawu la ci barke Cheikhul Khadim incha allah Serigne bi nee na muy nuyu rakam Omar Bawo neena na nag. ci hôtel California. ca hôtel California ca France ca France de Berry la baayam jàppe ci Iba Kole Baawa jàppe ci loxoom teg loxo teg ko ci loxol Serigne Basirou ni ko man Serigne Modou Moustapha laa yaakaar te Serigne Modou Moustapha mooy Cheikh Mouhamadou Lamine mooy Omar mi Makka laa jógee. sëriñ bi nee na Makka la jógee. baayam ni ma Makka laa jógee. baayam Iba Kole ni sëriñ bi Makka laa jógee. ak ndayam. ak ndayam. mu ni ñu. mu ni ko. bu ngeen jógee Makka. bu ngeen jógee Makka. ngeen di ñëw Paris. da di ñëw Paris. noppalu. noppalu. pour doog a ñibbi Sénégal. pour doog a ñibbi Sénégal. baayam ni ma. nee baayam ni ko. lii nga gis lépp. lii nga gis lépp. Omara. ma maa ngi ngi sakku nag. nee baayam ni ko maa ngi sàkku nag ci barke Cheikh Modou Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Lamine Baara nga ñaanalal ma Omar yàlla guddal aw fanam. ni ko li ko gën a li ma gën li ko gën a neex ci Omar te dalal xelu baayam mooy ni ko Cheikh Mountakha def mooy ni ko Cheikh Mountakha Bassirou def nee na baayam Alaaji Iba Kolle mi ngi doon dund muy dem ci Serigne Mountakha di ko taxaw di ko taxaw nekk ci wetam di doomam di taalibeem baayam nangul ko loolu rafetlu ko lool di ko ci ñaax ngir xam na ni ngir xam na ni ab murit jëf rek moo koy jariñ doom boo ko amee doom boo ko amee mu dem ba ki fi nekkal Serigne Touba mu dem ba ki fi nekkal Serigne Touba xàmmee ko ràññee ko def ko doomi xolam xolam kooku la nga doon ñaan yàlla may na la ko. kooku doon ñaan yàlla ca moom yàlla may na la ko. Serigne Mountakha nag moo ne ko yaay sama doomu xol. Serigne Mountakha nag moo ne Omar yaay sama doomu xol. te al waladu. te al waladu. wala daani. waladu sulbi. waladu sulbi. wa waladul xalbi. wa waladul xalbi. waladu sulbi. waladu sulbi. yarisul maal. yarisul maal. wa waladul xalbi. wa waladul xalbi. yarisul xaal. yarisul xaal. dañ ni doom. dañ doom. ñaari doom la. doom ji nga jur. doom ji nga jur. ak doom ji nga xam sa doomi xol la. ak doom ji nga xam ni sa doomi xol la. doom ji nga jur. doom ji nga jur. boo fi jógee. boo fi jógee. mooy donn alal ji. mooy donn alal ji. ak patrimoine bi nga bàyyi. doomi xol nag. doomi xol nag. mooy donn secret yi. mooy donn secret yi. ak mbóot yi. kon yow bu la sëriñ Muntaxa ne yaay doom doomi xolom loolu jëf ju rëy la. ni la ko sëriñ Mountakha waxee. noonu la ko sëriñ Mountakha waxee. noonu la ko sëriñ Abo waxee kii ci sama kanam. noonu la ko sëriñ Abo Baraka moom Cheikh Mouhamadou Fadal waxee sëriñ Fallou Galas Lo mii ci kanamu sëriñ Basirou. nee na sëriñ bi nee na moo tax yéen ñaar seen jataay bii. jataay bu rey ci man la. kon Omar. fi nga teg sa tànk foofa la. dara fëkku la. dara fëkku la. dara yëngalu la. dara yëngalu la. lu dul ak taalube. bi nga ñëwee. bi nga ñëwee. fii nga toog. nanguwoo toog ci kaw. toog ci kaw. moo valable ci galas mi. loolu moo valable ci Fallou Galas. valable ci soldaar. valable ci soldaar. jotaay bi jotaay bi. moo demee noonu. moo demee noonu. moo tax cër bii. moo tax cër bii yàlla moo leen ko jox. soldaar mi mu mel. nee na soldaar mi ni mu mel. Serigne Sidi Maxtaar si la mel ko. nee na mbirub sunu borom la. du kenn. ku dul yàlla sunu borom ak waajur yu baax yàlla mooy seet lu ko neex def ko ci fu ko neex ak ñu ko neex kon Omar sëriñ bi nee na bëgg na ci yow nee na bëgg na ci yow nee na bëgg na ci yow yàlla na yàlla bëgg ci yow yàlla na la yàlla jàppale nee na màggal ak Touba nii nga koy defee ma job mbay mii ngay àndal ak délégation bu rëy yónnee say nag. indi sa enveloppe indi ceeb lépp loo xam day defar màggalu Touba ab sëriñ di ko soxla ci gani sëriñ Touba yi ñëpp nga ko servi kon Omar sëriñ bi nee na jërëjëf Xalil Njaay mii nag sëriñ Basiru nee na Xalil Njaay mii nag day jarbaatam di doomam di rakam di xaritam di taalubeem di soppeem sëriñ bi nee na démb ci waxtu wi la fi ab camion taxaw. duy fur wi ba mu fees. duy fur la ko indil. ñu ne ko Xalil Ndiaye moo la ko indil. kuy dem guerre nag. kuy dem guerre nag. ku la jox arme. ku la jox arme. boo xam ni. boo xam ni boo demee. mën a am ndam kooku bëgg na. Eh, bëggul bëggul. sa sëngeem sa sëngeem. wala sa gàcca kon Xalil. sëriñ bi nee na jërëjëf. nee na xolam sedd na. sëriñ Xalil Ndiaye sëriñ Basiru nee na yow xale bu yaru nga. ku xàmmee nga ku xam teraanga nga ku bëgg lu baax nga Njaay sëriñ bi nee na xolam sedd na nee na sa diggante ak Omar Bawo seen ànd bii sëriñ Basiru nee na na ci lool nee na xolam sedd na ci lool kontaan na ci lool nee na mi ngi ñaan yàlla yàlla jàppale leen di sant ñi fi nekk ñëpp nee na bis bii nag nee na Serigne Sidi Makhtar Sylla moo koy woote ca Wakaam lay doon nee na muy bisub Serigne Bassirou Khadim Awa Ba nee na ku xool ñaari photo yi ñi ci nekk xam ni bis bi bis bu rëy la yamul ci waajuram yi dafa jël ñambaas Serigne Bassirou ci biir nee na ku la booleeg ñii ci bis bëgg na la fonk na la kon Serigne Sidi Makhtar bis bi Serigne Bassirou nee na bisama nee na boo ko ci deful woon loo nekk ma nga ca nee na fii ku ko fi fekk boo doon dem xare boo gestoo gis ko ci wetam kon jërëjëf Sidi Makhtar Nasiru Diin Ahmed Saloum Dieng bis bi bis bii nee na ba mu ko xalaatee ca 2004 texte arabe bi ñu ci njëkk a bind yow mi yaa ko bind sa loxol bopp sëriñ bi nee na booba ba ndege ni at mu jot nii ngay def ñëw ànd ko ak moom seriñ bi nee na du dagg li muy wax sëriñ Ahmed Saloum Dieng da day àggale ci moom nee na da doon dalal gan ñi di nuyoo rek comme taxaw na nuyu ko nee mu delloo ko nuyoo waaye nee na jëmm ji ku yàlla baaxal la ku bëgg lu baax la ku fonk doomu aadama la sëriñ bi nee na ku amuk taalube la ku gëm sëriñ Touba la kon Nasiru Diin sëriñ bi nee na jërëjëf nee na da nga fay fekk say xarit say wóllëre say soppe sëriñ bi nee na kon yal la yàlla defal jàmm yal na la yàlla dolli sutura alaaji Samba Diaw sëriñ bi nee na yow bis bii yaag moom yéen ko ànd lu fiy sécurité yaa koy doxi yaa koy lijjanti yaa koy indi kon jërëjëf jaw sëriñ Omar Seck joosi sëriñ bi nee na jërëjëf sek alaaji Ousmane Ndiaye inspecteur Ousmane Ndiaye sëriñ bi nee na xam na ko ndax mbokk ma di wóllëreem di ku yàlla baaxal di yëngatu ci alxuraan di ànd xaritam wóllëreem Abdoulaye Dia bu Sénico ak Moustapha Ndiaye di leen jàppale ci concours Sénico bi kon jërëjëf sëñ Ousmane Ndiaye sëriñ Abdoulahad sëriñ bi nee na jërëjëf Mbacke kontaan lool. nee na xolam sedd na Aline Diop sëriñ bi nee na jërëjëf nee na bëgg na lool yow sëriñ bi nee na xaritam nga jarbaatam nga soppeem nga ànd ak Alioune Sankhare moom nga xam ni moom ci ay yees la bokk di ku yàlla baaxal sëriñ bi nee na mi ngi nuyu sëriñ Mourtala Lo Aline Diop sëriñ bi nee na bëgg na lool. xolam sedd na kon monsieur le maire sëriñ bi nee na ñu jox sëñ bi mu ñaan